loolu ko din taane taaru nit taaru aadama matti yetum fajal masala aw mata neetum in daa kenn la wasalaatu naa ñett fukki aaya tan ci kaadoyo de bismillahi rahmani rahim ngubu rahmani kiraja tew minas nas kaatu yaare in kiraja tew jula jala ala ala taa dikkina ala linsaani ci aadama nii um jamono mina daari ci jamono lam yakun nekkum saye ngi def mas koram ni num tuddine aadama jamono ju bëri romb na ko te ñëw ci dara jalaa ne ñeen fukki at waaye du moom rek de téeméer def ak ñaar fukk Adama ba ko yàlla bëggee bind dafa yebal malaaka mu tudd ci suuf xeeti suuf juróom benn fukki xeet la yu bokkul ñu bind yu bokkul juróom benn fukki xeeti ndox yu bokkul mu tooy yàlla bari ko ñeneen fukki muy ban liir moom di tax ci loxo gannaaw ñeneen fukki at mu mu liir ñeneen fukki at mu wow te nekk mel ni xandeeri mbànd buy tiimee rek ñaar fukki at ñu ngi ko jënd diggante amaan ak béykat ma xati malaaka yi ñëw di romb ma di yàlla tër fii lum ci namm Iblis ñëw ci seet yàlla day def la ci bumu kër fii waaye su fekkee mbindee fu mu bind rek bëgg koo gën a ci sama ko dee man danaa laaj bu ñëwee ko day déet mu booyee ko ci aadama ci mu jumbax ba tey ci jindab doomu aadama foofu la ngi biir kafe yoonu Adama lim ci xoose yàlla bind ko muy xaj looloo tax xaj miinu doomu Adama mën na tàggoo moom ndax ci banu Adama la bokkoon caay ci xaj ñu ngi ko jëlee jëlee loree loree Iblis li ma am ci ak mbaax ko jëlee ñàkk a nelaw gi ko jële jëlee laal ko Jibril la aroon te Iblis ñëw dugg ci dugg ci bëgg lu fi yàlla mën a bind waaye am lëm la de bu amul lum lekk du ma taxaw gannaaw téeméeri nag yàlla yebal roxo ne ko demal dugg ci aadama roxo ne yàlla jégal ma lii yaram lëndëm na lool du ma cee dëkk roxo moom leer la bu jóge ne ko dugg ci dara mu yàlla ne ko duggal ci sa nga bañ te sa génn dafa def ci sa nga bañ looloo tax nit buy dee ci sa nga bañam lay dee rawatina daal di dugg ci tànk yi aadama di dox ba di juróom yi aadama yi muur jëkkër te bëgg a dox te rox gi matagut rayaat ci yaram yi moom rek moom la yàlla wax ne xanin saanu alaajal doomu aadama ku yàkkamti la rox ngay dem di dem di dem di dem di dem di dem waaw base bi jublu kër yi Adama nag tey loolu it ci waaw digg bopp Adama daal di gisoo lii loolu la a def ba mu gisoo leen alhamdulilah Adama njëkk a wax boobu ne ko loolu rek a tax mu bind la. mu liggéey di dund lu am yàppam garab gannaaw bu mu nekkoon rek di jamaat fan rek kattan lu mat xam-xam bu mat moo def loolu. moom la yàlla nettali aadama moomu kat xam na ay di ban bu tooy xam ay di ban bu niirat xam ay di ban bu wow koom gannaaw ko nag la fa yàlla a muy nit ñu naan la tamit xalaat bind nañu ñun daanaka nit kat moom ñu ne petit ñi bu tukkee ci toqan man yow am saa ñu mu di te waxati ñu duñ wax ba tey aadama moom noonu rek lañ ko bindee suuf rek yàlla dawal ca roxo doomu aadama nag moom lan moom ci ndoxam góor ak ndoxam jigéen mu jaxasoo te lañ ko bind ndax tol yi dana natt ko ñi ko natt ko la nga xam ne moom la ko yàlla sant góor ak ndoxam jigéen bu ci nekk ci lu koy mën a taxa sell bay dëkke téye yàlla loolu la am jana yàlla ja lu may gëm yàlla ak doomu aadama ngi rëy loo rëyeeg sa njëlbéen ndoxum man yu rek la sëg muj mégg rek nga fala doon ci diggante bi foo tollu yaa ngi yenu tojal tojal waaye saa ne moom gat moom moo ma teew sa biir ak foo a ana lum rëyee man da lu may rek gëm yàlla di topp yàlla def ba jaar naaw ko sama yaan ngi dégg ba këram yaa ndoxam na nii moomu bët yaare ndox yooyu yàlla dajale yàlla fàttal na ko nopp yi muy déggee ba ñu gudde yàlla yi wutal moom foofu jox na ko xel moo xam ne waroon naa mën a xam yàlla moom doomu aadama suñ yonent yi ñëwutoon itam nit ñi war na ñoo xam ne jëf du ne am na ko ko jëf kon nag asamaan ak suuf la ko ci ngi jëf te ko jëf mooy yàlla loolu moom waroon nañ ca mën a àgg waaye yàlla doy loolu loolu yónni ay yónnantam xam le ci yàlla ak li war ñu war koo def ak li ñu war a fay loolu du teraanga yàlla yónni ñu day ay yónnantam dinaa naka maa day naa ubbi dal na leen ko sabira yoonu gën ci guddee ba yónnante yi ñëwee njub immaa kaakiran benn nit ki de aji gëm immaa kafooran benn muy aji weddi de nit ku nekk waroon naa mën a xam yàlla te yàlla dugal ñu yonent yi waaye li yàlla bëgg nag lii lañ war a dem lii lañ war a bàyyi loolu moom te amutoon loolu duñ ko a xam moom clair ne xel mënu caa àgg yàlla yónni yonent yi nag ñu digaleen ñu yoonu njub léegi nag nit ki yaa rek ko jot benn mu gëm yàlla wala mu weddi yàlla de ci mu mujj a tudd kooku la jot a affaire yi naanaka nun en fait maa xam ngir kaafir na ñeel yooyu weddi ñeel xalaat dana la wax laa naa ci gax de su fekkee weddi la tànn moom nit ki ba noppi xéefar man tam may denc naa ko ay calal la yoo xam ne dayoon na ca xaaxatu zero a sabona ziraan wa tayana nag safara de ak safara soo xam ne ci lay dëkk rek mu dugg ca bugal daa iman abadan xéefar moom loolu wàll gàttal nañ ko ndax moom moo gën a dox xabaar ma gën a gàtt moo tax ñu jëkk ko tudd ne la baara naka way jaamu ñu yàlla nag daf ne woon benn mu gëm ko la mu weddi su fekkee nag nii gëm na da bokk ci jaamu yàlla yi topp yàlla yëpp la doon na danañu naan min kaasin ci sàngara min kaasin ci kofee ci sàngara kaana sàngara goog nekk na misaaj waa yaram kaafoor a ngi kaafoor de amaaj julit nag yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu ñoom ak jamono la ñuy dëkk di naan sàngara soo xam ne kaafoor lañ koy njare de ma jaadu kaafoor ay nan taggal seew de dafa mu gën a naan gaa ci moom ne baaru laay wali yi a yi rek taggal seew de moom la yàlla yi nandale wali yoon mooy kaafoor de moom la ñu leen di jarale seen sàngara sa jaar jana moo tax ñu ay naan sàngara jaadina bu ko naan jaadina murid bu doon dara dana ñoo amat ba bi dana amat ñu doon jaana ku nekk rek sangara feeg ndox me meew me du dem gi ñu ngi tolloo moom. gerte yaa ngi gas del ñu nekk ba tëj wala ñu yàlla li ñu def rek ñu ñu def ñu tegu jëfandikoo ba tëjee ba rek mu daal di ko jëfal mu naan du man ni dara def ca kaaf la kaaf la di jeex itam fekk man di loolu yëpp naqar la ko yàlla naqaram woo yow xoolal dara ñu mën a gën a fekk ci ñi sax ñooñu dëkk yàlla jaama jooju mooy ña nga xam ne dañ daan matal seen ñi sax rek lépp luñ ñi sax ci topp yàlla danañ ko def. wala ah ba nga dañuy ragal yow man dëkk daanaka boobu nekk naa soriwul waxaayam mu fekk ren de ñu def aar rek te ragal nañu itam te itam yàlla ki nga xam ne ayam dafa tafaatoo rek. wala si mu attaar maa raw bii wàcc na ci ñoom ñeegam yonent bi wa sallam wàcc ci sidina Ali Abi Talib ak ñoom ñeegam sidina Ali la amul dara waa këram dañ ciy góor mu dem bind boppam dàgg ci toolu bi yow fanaan ay tamara wu wëtt ñu fay ko saa si taneer mu indi ko ca néegam mais Ndeye Fatimata def ko ñetti xaaj benn xaaj bi nu mu ko woon dafa muy jaayira mu wal ko defaraayira loolu xam ne na ko mu ñor mu taaj ñu fukk bëgg a lekk miskin di ñëw ne ay yéen ñoo ñëw ak yonent seen miskin Sidina Ali ne fab leen jox ko ñu ko ñoom xanaa ne ne rek keroog dafa mu ne ko wala te moom ñaareel bi mu war ko ba mu ñaareel dañ fi mbëkk lekk benn jaar-jaar ñëw benn nit benn benn jidim ñëw léegi nag ñoom ñooy def benn jidim ak lii xew ko léegi nag yéen a jox leen ko ñu jox ko ñoom ñu ko ne ca defaram ñu jaar-jaar jóge ca ñëw. yéen njabootam ñooñu ñëw dafa ngeen doon gën benn mooy xelal ko de ne jox ko ñu jox ñoom mosuñ ko ba tey am ñetti fan yi àll yoo de ñoom lay àll tagg ci laay wala fi mu war a danañ leen def paama ñam ala bu yi ànd ak soppam nit ki yéen miskin tiim ñam sopp ko lool xañ ko seen bopp ba tax ko miskin waaye tiimal ak jidum gërëm ko leer jidim waa ci dana kam jaar jaar rek te kuñ ci leeral ba noppi daañu la wax ne innama kum naka waru leer leen ndiwal ci laay mu jëm yàlla laa yëngu dund mu ngi kum ci yéen jafe-jafe feebaral ci kawam bi jaagal ak cant rek bëgguñ ci yéen fay bëgguñ ci yéen gërëm yàlla rek a tax ñu def ko rek inaana kanun naxaamu kanun ragal na dinaa ci baram sama yoomam de xam boo sam mu dee ñu ñëkkal kanam xam ki doon xam ka leen mu dee ñu tardé. waaw xew mu naa la damu tardé yàlla taral dina waa wa gundina jageñale kutuba ko ci ak jama daf yaram ak jageñal boo taxalee tolloog moom boo gisee tolloog moom boo tëddee tolloog moom wala saa bu wër wala ñoom di arin din ci gofe di arin din ci ndax waa Koabin waa ati gofe de daa ñal wala ay nabi xaalis ati ko gaanam yooyu nekk nañu xawaare doom fii weer min sunnati Yuusuf ci xaalis de ay weer xaalis la ñuy doon xaalis yoon ay weer xam dara am na tële lañ ko sax yoon am na tële waaw weer bu nekk dafa yem képp ci naanam waaw wan yu ñu koy naan nandale bu naanee waaw bu mu andee rek rek mu jeex rek wala xaw ma yem na nandale nga ak ak yenn kàttan sangara kaame foofu nekk na mbitaay jaareen jaram zam jabiiran di zam jabiin de te dañ leen di nandal sangara boo xam ne zam jabiin lañ koy jëlee وجعل من الجبين عينا فكرت فيها هناك جعل جمع يسمى لأن تدبيدا تنتبيدا تنتبيد لن تبدي تنتبيد لن تبديدا تنتبيد لن يأخذ جعل جمع ويتوب سنة وراء ذلك يوم الدار الله جرى مخلدون يدين بيرا إذا رأيتهم جم جسنا لن ينبت ليريا حكبتهم قجاس لن دولهم يور تدولوا مغفرة ولي ولي أخر وإذا رأيتهم جم جسنا سمى فوق الجنة waaye ka nga gis maye man ka yoroon nguur ka nag nguur kabiran bu dee aji mag de boo demee aljana daal yàlla maye da nga fa gis nguur gu mag te da nga fa gis xéewal gu mag de ku ne bëgg naa gis loolu de yàlla sax yem na ko ah yi nga naa ñu nekk lañ daan kaw si aru sundusin malaane harira xudruñu ari ci yitu bay werte ñoom ñëpp dañuy sol harira yu werte way sabraxunoon te harira ji sol ren waxul loo ko sakkale seen afaare redam lim fi ba suñu tukkee ci xaalis wa saqaahum te nandal leen rabbum borom seen sawaban ak naan sawaban bu di laabalaa ko ne inna hadaa naka jële jële xéewal kaara nekk na lakum yéen nga baal di fay wa kaara nekkoon na fay kum jëfee mas borom bi duñ sant inna naka nun naa nun na fa naa wàcce naa rek jaar sama alquran tam ci na wax tudd naa raa xanam ngi indi ak yonent maa wàcce ci alquran jëlee parce que mu ñëw li mu ba jafal wala mu fi bu topp mënuñ ci ñoom ah mën a aji bàkkaar aw ko xoolal i ka gaa bande bu déglu wala mu xarata bu déglu wala mu xarata mu rabinaata bu ci nekk daa wéyoon naa wa ko ci bëri sa rabbi ka borom ka bu ko defam jëlee léegi wala xëy na seen borom de wala xëy na seen bi kaw doon bi nga aji la ko def junni juróom gën a ci foofu dina xawul ay ma dañu waaye balaa a dëggoo am te a seen doomam des fois yoon bu laaj bi ah bi ñu naan leen bu bindee liggéey bi yàlla wax dëgg naa dara nañu ak romb ay kër kër yàlla bind doomu aadama yi te dëgëral seen a kër dëgër bu jéggi dayoo waaw gàllankoor nañ ko yàlla bind doomu aadama te bind ko dëgër bind ko bind. doomu aadama gën a dëgër ci li yàlla bind. ngelaw mën naa daanaka saa mën nga daanaka xale bu gën a tuuti moom ñu dem seetlu nekk yàlla ko ko dëgëral te itam mos ko moom boo xam ne bu dëgër ba day gis nit ki dox ba mu yàgg loxo ngoor ki dox ba mu yàgg tànkam la teeku ngir dëgër waaw yeneen yëf yëpp loolu dana ci am parce que dana dem ba mu yàgg tànk wala teeku borom te borom yëgul kenn ci tegu nit loxo ngoor wala bëtam rot yàlla tama ko bu dëgër a dëgër a dëgër a dëgër a dëgër a dëgër wala waxal ba maa ko njëriñ wala asalaam ma ay rafet la yàlla a leen bind dañuy itam jox la leen gën xëyoon takkal seen rafet ba mu dëgër su tax ko doon loolu foo ko ba jëlee daal di soppeeku yow bu mu gërëm ci daaw rek yàlla nga xam ne yaa suy naa ngeen soog nañu loolu moom kenn du ko war a dégg ci sa a loolu. dina laaj ñu ne tamit ne saa def ko a aw waat lañu. ba man saa ko toog lu muy tax a mu taatu dinaa la fi jëm ci borom sax yoon yoon jëm ci toogam de damaa ko saa wala toog ci loolu. dinaa ne saa laa nga def toog na laa ne dana la saa na mu ànd ñun daal nga xamaa indi defam. ak ñun daal nga xamaa indi defam. nit ku ñu gërëm wa faa ñu na. aduna mu aduna mu mooy toog na. ah ba xam ne moom daaw mu jëlee ah daaw mu jël ah yéen mu daal di ñëpp de.